خل لمن مهما inni la xil dul nil ka bene ak waa Kër Sëñ Fallou yëpp bu ñu tuddee rakam ju baax ji muy Serigne Saliou moom Alaaji Baara mu sëriñ Fallou xaritu donga yi Mbàkke kontaan nañu waaw ñoo bokk Baye Moodu dëgg la ak ñu ñu àndal ñëpp sëñ Moodu ngi nii sëñ Moodu Mbàkke mu baax mi nee na nee na ñoo bokk Baye ba noppi te mooy sama Baye loolu neex na ndax sëñ Baara lañ ko tuddee. ah sëñ Cheikhouna nee naa la waa kër sëñ Fallou yëpp la ñëw sëñ Cheikhouna moom sëñ Basirou moom Cheikh Mamadou Fadal mi ngi noonu jërëjëf Mbacke waaye sëñ Moudou Mbacke. mu ñëpp a xam ni lañ doon estalwaat maire bi ñu tegaat ko fan ko tegoon rek ñëpp kontaan ci ci taxawaay. waaye bokk yëpp ñëw nañ sëñ Alaaji Ndiaye ñoo ngi lay siyaare baax a baax. di Modou Sall nay leer ñëw na néegu ndey sa néegu ndey ñëpp ñëw nañ sa bokk yëpp ñëw nañ mu Géey di kenn ceew sa digganteeg moom ñëpp xam ko mi ngi nii toog Modou Sall nay leer jàmbaar sëñ Abibu mu sëñ Fallu ngeen bokk sëñ Fallu di sa xarit mi ngi nii toog alaaji maam Thierno Ndiaye ak Mour Diang Touba ca kanam ñoom ñëpp ñëw nañu yaatal noonu nag ah doomi sëñ Modou Fati xarit mooy ñëw di magam ñu may ko Mbàkke Bàlla noonu rek lay mën a demee am di sànqe ñoo ngi lay siyaare sama xarit sama soppe jambaari sëñ bàmba ji liggéey rek la xam am di sànqe mu baax mii di kenn ki yow di sa dëkkandoo am di sànqe am di sànqe mu baax mii di xaritu sama sëriñ sëñ am di Ablaye Sène ak ñoom ñëpp ñëw nañ ñu may sëriñ bi tey ñëpp kontaan nañ ñu ngi nuyu mbokki jullit yi fi daje yëpp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Mamour Lamine Baara ak kilifa yu tedd yi ci suñ kanam yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare bu baax a baax waaye naka noonu di wàccee nuyoo bi ba ci mbooloo mi ñëpp di yëkkati kàddu yi gàtt rek kàddu yi sant ak seere rek ci suñu diggante ak Baye Modou mi yàlla def ñu jaxasoo ci ndaw ba yàlla tollu ñu fii ñu tollu tey muy nit koo xam ni bariwut may am kumpa ci moom waaye moom it bariwut muy am kumpa ci man loolu li ko waral nag suñ jikko yi day benn rek ndax ay nit foo leen seen ñu takkoo boo xëyee gis leen boo xëyee dellu gis leen waatal ne buñ bokkut jikko yi la leen boole moom ñoo ko ñoo ko bokk jikko ji leen boole la leen tax a ànd ñoo ko bokk moom nag mu yor jikko ju rafet joo xam ne bis bi tey ku ñëw fii dana xam ne Baye Modou mii jikkoom rafet na ndax nit ñi kat dañoo toll foo xam ne ci jamono euh, dañuy wax ne amul wenn warugar wu war morom ja di tànk nit ñi moom koo seen foo foo leen soxlaa ñu ñëw loo ne ñu ne ci ak yow waatal ne sa jikkoo ndax nit ñi jikko la ñuy àndee te moom jikkoom rafet na lool ñu di ko seere waaye di ko seeral kilifa yi fi nekk di ko seeral ay bokkam yépp di ñaan ci màggug suñu borom tabaraka wa taala xale bi nga xam ne moo ñëw jamono gane suñu fii ci àdduna suñ boroom bàyyi ko fi def ko mag def ko magum lislaam te def ko mag mu am ay teraanga jox ko ay njëriñ mu jariñoo ko mokk ay waajuram ak i bokkam yépp ñu ngi sant ji gërëm bu baax a baax xam naa kàddu yi dañ koy yemale foofu rek ndax kàddu yi seere rek lañ doon def Eh, ginnaaw kilifa yaa ngi toog duñu duñu duñu sori ci kàddu yi waaye daal eh, xol bu sedd mënut a weesu xol bu sedd sama diggante ak Baye Modou it mënuma koo leeral nit ñi ba ñu xam ko kon dama koy bàyyeeg xamuk yàlla gi tabaraka wa taala ñu ngi delluwaat di nuyuwaat kilifa yëpp te di leen jox seen wàcc wàccuwaay wasalaamaaleykum minallaahi wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ah, di jiital ci nuyoo bi xalifatul hamdi taifatil muridiya ayyadahu llaahu wa rafahu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ñu ngi nuyu euh, di leen di nuyu tamit ci turu xalifa ma Massamba Mbacke sëriñ Mamour Massamba Mbacke di leen nuyu ci njabootu sëriñ Modou Fat Xarim Mbacke gépp di ci jiital sëriñ Fadilou Mbacke euh, ñu ngi leen di nuyu nag ci turu Baye Modou Ndiaye ak ci turu Soxna Aji Mbène moom sëriñ Modou Xabban Mbacke mii nga xam ne mooy mooy jëmmal jataay bi. leen di sant ci turu Baye Modou Ndiaye. ñi nga xam ne ñoo bokk waajur wu jigéen sunu waajur nag defe naa sëriñ Saalihu mi xam na si lu bari ndax yaa ma awa ndaw <laughs> sunu xaritu waajur la woon kon yow bu ma ñëwee fekk la fi rek mën nga seedal lu bari te wa maa sahidnaa illaa bimaa hamilnaa adduna nag di nii rek ndax eh, yàlla bi mu waxee al muslim waa ko xol muslim daf ca teg xaraamun dàmmahu wa maalehu wa xalaluhu ak jullit nii rek la war comportement nii rek la war a mel ndax jullit moom rafetal rek lañ ci ndax innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum kon ak mbokk danga koy defar di koy téye te lii rek mooy mbokk gi mën naa defar lépp te lii rek mooy li waral lépp ndax boo xoolee mbokki daara yi daje nañ fi mbokki diine yi daje nañ fi waaye nag ku mel ni Baye Modou njaay it wax dëgg yàlla day xale waaye day xale bu am jom di xale bu baax ndax ku ne xam ne ne Baye Modou dem katoo xew la ku mën a sonn ci xewu jàmbur la man bu ma xewlee bu fa ñëwee su jëfee bu bàyyi léeg damay toog sax ba may wéet naan waaye Baye du xaalis lii muy lay mu fi indi teraanga yi fan la ko jëlee man léeg damay xam nga xolam moo rëy xolam dafa rëy te xewu jàmmoo da cay dem ba mel ni moom moom xew yépp te xeebulut kenn dara omarkan omarkan Omar Kan daara mi toog euh, seede la ci ay jamono bi ko fi ay natt yi lislaam ndax ku ne xam na ne ku yëngu ci diine moom fokk ay natt doon la dal bàyyi moo du guddeeg bëccëg woon na ma ci di jooy jooy yoo xam ne day mel ne rek moom ci boppam sax moom moom problème kon Mbàkke yéen ñi nga xam ne nag yéen a fi njabootu Cheikh Mouhamadou Fadil di fi njabootu Serigne Touba tan xam ci lu wér teng ñu ngi leen koy seedeel te di leen koy di leen koy doolee dénk bu baax di leen di seedeel na nag soxna Aji Mbàkke mii moom Serigne Modou Xaban mii nag moo fi suñu kilifa ndax mooy suñu taaw bi yaay ndax suñu yaay bañ jógee ca Serigne Modou Xaban naka jekki soxna benn fàlloo ko yoroon waaye soxna benn fàlloo ko jëloon nag jox ko Serigne Modou Xaban mu taawul ko ci soxna Aji Mbàkke mii bi mu fi jóge waatee euh, sëñ Modou Xaban jógee fi mu liggéey liggéey ba ba àgg ci la ñëwaat nag ñu jox ko sëñ Modou Faat Xari man mii sëñ Modou Faat Xari moo ma jur ginnaaw bi nag soxna Mbeen mu nekkaat ci loxoy soxna Mbeen fàllu ba soxna Mbeen yëkkatiwaat ko nag joxaat ko taalib yëpp sëñ Fadilu bu naan sëñ Ibrahima Ndiaye Njuuma koo xam ne sëñ Falloo ko xooloon ba tuddee ko Ibrahima Ndiaye Njuuma Njuuma jooju sëñ Falloo ko ci euh, dolli woon nga xam ne kon ñun sun sunu kilifteef ak sunu moomee la lépp ci loxol soxna Mbène Fallou la nekk naka jekkit bi fi yaa bu sa di nekk ci seen ci ndigalam la nekk ba suñ jooni tey jii képp ku fi nekk nekkal fi soxna Mbène Fallou yaay moom sunu kilifteef ñun ndax sunu yaay xamul woon ko du soxna Mbène te leen lool lépp di la géeb sëñ Fallou la rek yaag sa bokk yi nga bokkal Serigne Touba sëriñ bi kàddu gi diglu nañ ko bu baax muy kàddu yoo xam ne ni lii nga wax ci baay Modou ku ko xamut doo ko wax sëñi daali ànd ci ngone tolloo ay at la waaye doon ba doon mag dem ba doon mag kenn ku nekk samp kër kenn ku nekk man dara ngeen continuer ci ànd ba jikko ju rafet la ànd ci ngone bokki at la waaye dem ba doon mag kee samp kër kee samp kër kenn ku nekk man dara xa ngeen ànd ba loolu jikko ju rafet la mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi na sang yi nga xam ne ñoo fi teew mu di sëñ Mouhamadou Lamine Bara mu sëñ Abdoul Fatah ak sëñ Modou Abdoulaye di mbokk di mag ci Baye Modou ak sëriñ naa ak mboolem Cheikh Cheikh Saliou nga xam ne kàddoom daanaka bu yëkkati woon rek mooy sama kàddu ndax genn kàddu la waaye nag sëñ moodu comme dafa sàkku ñu wax ci ñu sànni ci ñaari kàddu rek kàddu yi sant ak ngërëm ñuy sant ñi fi teew ñëpp bàyyiwuñu kenn kenn ku nekk gis nañ la. waaye cant gi yëpp nag mu jubluwaat ci sëñ Baye Modou Mbaye Ndiaye mii ndax nit ñi li leen dajale du amub essence du mën a dem jikkoy Baye Modou moo leen fi boole daje Baye Modou mooy nit koo xam ne nii kenn. xamu ko ci lenn kenn xamutum noonam Baye Modou ku mu gis boole na la ci boppam képp koo xam ne nii Baye Modou xam na la def nga ne yow rek la safoo muy lu wér nag ñun nag bu ñu ci dee wax yaakaar naa ne mënuñ ci seere ndax danoo bokk lépp rawatina kër Cheikh Modou Fadal mi may wax léegi waa waajuram ma ni ko ah, ba ma koy xam de yaakaar naa ne booba Touba ji melul nii ca kër Soxna Mbène Fallou booba dee yaakaar naa ne eh, ku dugg marché Ocass jëm kër Soxna Mbène da nga xam ne wute naag tey ma xam ko ci kër sëñ Fallou waajuram bañ jox ko waajuram waajuram di lépp sëñ Fallou nekkoon ci daare sëñ Fallou liggéey fa liggéey bu rafet ba sëriñ Fallou jóge fii bàyyi moo di jox tànki baayam yooyu mu di ko dox ci biir kër sëñ Fallou nag la ko njëkkee nga xam ne fa la juddoo ami fa léppam gis nañ dongay tarbiya yi ni mu ci taxawee daayira ba ak yëpp lu mu ci nekk loolu lépp bëgg lu rafet ba ci turandoo sëñ Fallou yi nga xam ne maa ko jiite sax bàyyi moo day mel ne ci turandoo yi la bokk kon nag loolu ak jotalam la ak bëggam lu baax ak bëgg sëñ Fallou ci kër sëñ Fallou mu fekkee ne da nga faa mokk ba pare wanee ne fa nga bokk mbéwu nag wéetuwu nag ñëpp nag mel ne ñëpp dañ laa bokkoo bàyyi moo du kër gum tudd rek nga yaakaar ne fa la nekk waaye nag sëñ Fallou mooy léppam waaye loolu nag jotal ak baax ak xam lan mooy àdduna moo tax kon ñu ngi koy sant di ko gërëm loolu moo waral tey jii ba bi ñuy tànn adjoint yi maire yi ñu dem tànn ko ci loo xam ne yëgu ko kon loole ab liggéeyam ak jëfam ak lu wax lu baax ak doxam lu baax ci loo xam ne man dama daan gis mu ñëw di ko seere ak di ko dox ci maire bi ñu defoon ko conseil technique gu maire bi defoon ko conseil technique am ci lu ñu bëri xamutoon mu nekkoon conseil technique am nekkoon ci wetam kon su demee bañ def ko defe naa euh, mu bokkaat ci conseil kon mérite la kon ñu ngi ndax bu fekkoon ne wane foo lu baax maire bi du xalaat ba dina koy dugal ci biir euh, équipe bi kon nag loolu lu rafet la ñu sant ko bu baax di ko gërëm bu baax di gërëm ne mbooleem képp koo xam ne nii rek teew nga fi ndax ni ma ko waxee rek essence andiwu fi ñëpp jikko ñoo fendim jikkoom dong moo leen fendi ndax kenn ku nekk man nag rawatina damay magam lépp lu bokk bàyyi bokk lépp bañ naa ko bi muy jóg na maa woo léegi wallahi laa maa ngi nii maa ngi wax kii ne ko maa nga jëm ndakaaru parce que sëñ bi damaa yónni ministre de l'intérieur pour affaire màggal gi ma ni woon bala maa dem danaa fi jaar ba nga tudd ndax wax dëgg yàlla xewam bi maa ngi koy tooñ léegi nag xam naa fonk nga xanaa ko ndaw kee moo xewle <laughs> ndax euh, euh, loolu lépp ngir bëgg lu baax ma ne ko incha allah bala maa dem danaa fa jàdd fekki waxtaan wa incha allah fekki tudd ma kon nag bi ñëwee fekk fi sunu sëriñ sunu xarit di suñu lépp mu Cheikh Amadou Lamine mu tuddoom ji sant nañ ci di gërëm nag ñëpp ñu fi wekk ñëpp rawatina suñu xaadim Guèye suñu Abdou Lahat ñoom suñu maam Thierno ba ci ñoom Bamba tey daal li ma wax ne jotal moo tax journaliste yeeg ñëpp tey teew nañ am ba baptême boo gis nag journaliste yeeg ñëpp teew fa ñaari ñu ko xamee woon ci borom wutur wala borom borom dara ji joo xam ne politicien la wala dara waaye na képp commandant ak ñu ñëpp ñëw teew loolu day wane ne Baye Modou kat jëfam rafet na taqoog gim taqoog nit ñi rafet na yal na la yàlla dimbali yal na la yàlla jàppale. Sëriñ Saliou nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ne ñoo ngi fas yéene yëkkati sunu kàddu ci ndigal ne sunu kilifa. di sunu waajur ndax Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi ñu ko tubbee ak ni mu nu jàppee ngir jëmbi Cheikh Mouhamadou Lamine muy Cheikh Mouhamadou Lamine moom Cheikh Abdoul Fatah moom Cheikh Mouhamadou Fadal ne kàddu sëriñ ci biir ay donga du war a génn ñaar muy soññee ak sant rek sëriñ bi nee na mi ngi jiital ci cant gi Baay Muudu Njaay mi nga xam ni moom la sunu borom dogal mu waral jataay bi ci lii nga xam ni moo nu fi dajale muy lu am tuyaaba nag sëriñ bi mu ne nanuy fàttaliku sunu diggante ak sunu boroom saa yu nekk maa ngi koy wax léegi Muudu Mbay ma ni ko loo jàppe ko am jom mu am lu mu wax ma ni ko déedéet ñàkk jom mi ngi tàmbalee nga dib julit di sàggane santaane sunu borom waaye nangoo liggéey moom bëgg a tedd rek la ab julit du sàggane santaaney boroomam du wàññi dara boroomam waaye dana ko wàññi moom nee ñoo ngi koy tàmbale foofu nee li nga xam ne yàlla nu ko sant amuñu luñ ci tële li nu yàlla warloog ñun ñëpp tëlewuñ ci dara lu mat a bàyyi xel la wolof dafay far di wax ni yàlla du teg kenn lu mu mënul boo koy firee ab aaya waaye ñu bari dañ cee juum laa yukallifu llah nafsan ilaa wusxahaa jooju bu dee ci baatu arab bi firiwut yàlla tegul kenn lu mënul li muy tekki mooy yàlla du te kenn dara ndarre da koo man ba pare il moo tax mu ne illaa wusaha ndarre da koo man kon moom yàlla lum la teg rek fekk na man nga ko ba pare santaay na ye nag moo am masta taxtum kem kattan waaye tere yi moom lépp la bëgg nu ba ko ne loolu lu mat bàyyi xel la li yàlla santaane borom dëkk bii di sëñ Touba nekk ci ba yàlla may ko lim ko may nu yaakaar ko kon sunu ñëwee waar wam nu tobbil nu di ca bay ba sun borom jëlee nu ci ci coobareem benn la ci soññe yi ponk yi bari na lool waaye suñu waxee sunu diggante ak sunu borom suñ ca defee la nu war te nu man ko sunu digganteeg sunu borom ñëw na sunu morom sunu digganteek sunu morom dugg na ci ndax ku def sa digganteek sa borom sàmm sa diggante ak sa morom nuroo nañ nag ci waxin kon loolu lu mat a bàyyi xel la sa borom nag ak sa morom nuroo nañ ci waxin waaye bokkuñ ku sàmm sa digganteek sa borom da nga sàmm sa digganteek sa morom sëriñ bi ne kàdduy yi loolu rek la. waaw ñoo ngi rafetlu bu baax teewaayub journaliste yi waaye jël kàddu gi nag maam jël ah, nuyoo bi teg ko ci ah, loxob laay bamba mu baax mi taalib sëñ Tuubaa bi. Moodu dimbali nga ma laay bamba ak journaliste yëpp ah Baye Moodu nee na xolam sedd na ak sénébar yi ñoom ñëpp ñëw nañu Baye. fi mu ne fi mu ne xam nga ne Cheikh. waaw kenn ubbeetul am tudd. Mm-hmm. ndax gars yi nga xam ne ni taalkat yi. Sénégal yi. rap rapide naa la koy rapide naa la koy rapide maa ngi noonu waaw waaw. Laye Bamba jërëjëf barki dem na lañ tàggoo Porokhane soxna Bali jërëjëf kontaan nañu ak ñi mu àndal ñëpp ñu tàllal sëriñ bi ñaan. jugal te sant ko nag sëriñ bi may na la sak ndax la gaañ a bëggoon ne sëriñ bi yow la ko jox. yow la romb ca tool baay kulli cuun yaag sa mag booba la lay dimbale siñ becco keroog ba nga dawee ni ko ba di daw ca nga sa daw ya mooy sunu raw mani kaasu attaaya ba keroog sëriñ saaliw bam ko jëlee di ko jox mag ñay xëccoo ak ka wax sëñ bee cun la ko jox lu ci way ay waay dara dara dara dara ay waay dara ndeysaan mani ataaya ba keroog sëriñ saaliw ba ko jëlee di ko jox mag ñay xëccoo ak kawax sëñ bee cëccun la ko jox lu ci way mën ay waay dara dara dara dara ay waay dara lay lay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 soxna Faati Jaxate kii sigilu na waa Jaxate sëriñ Matar